bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain mbokki internet yi rawatina mbokk yi abonné di suivre seen chaîne bi di MTTV ñi ngi dellu di leen nuyu di leen ñaanal yàlla jàmm ak tawfiq ak sutura eh, fa tabarakallahu ñi ngi ñëwaat ci seen secret yi nga xam ni ñi ngi koy ànd yen yéen ci vidéo yi di ko jukkee ci alquranul karim muy téere bu tedd bi nga xam ni yàlla subhaanahu wa taala wax na ni ma na fil kitaabi min shay ñeena bàyyiwul daara lu aju ci dundu doomu bi lu dul ni indi na ko su ko defee tey nag ñi ngi ñëw ci secret bu nga xam ni saar la ci biir alquranul karim ci 114 saar yi nga xam ni moom moo composé téere bi muy saar bu ñuy wax suuratu taaha taaha nag di tuuru yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom rekk tur bu bari ay secret la ndax taaha Euh, boo ko xoolee quatorze la ndax taa gi la ha gi cinq la su ko defee muy euh, quatorze yooyu ñu ngi tolloog turu yàlla bi nga xam ni moom la wax wahabu wahabu moom mooy quatorze bu fekkee ni nag saar bi di suuratu Taaha nit dafa am li ñuy tuddee ak tële ci wàllu sëy muy góor goo xam ne dafa tële waxuma sax néew doole waaye koo xam ne moom dafa mënatul dara dafa tële euh, bu fekkee jël na saar bii di sóoratu tooxa xani lu ne mag ñi daan nañ ko ci def ba ci baatam boobu tur boobu di taaxa rek taagi lu ne daan nañ ko ci liggéey saar bi ngay bind ba mu jeex ci bopp ba ba ca mujj soo ko bindee ba saar bi jeex nga dem nag wuti ji garab yi nga xam moom laay wax muy garab gu ñuy wax ngañ yi nga wut ci reen yi ak garab gu ñu wax keng moom it reen yi ngay wut ak garab gu ñu wax dànq nga wut ci reen yi ak garab gu ñu wax senjeng nga wut ci reen yi bu ko defee boo bindee suratu taaha ba mu jeex nga boole kooku reeni garab yi ma wax euh, mu nekk benn saafara nga di ko jëfandikoo di ko naan fekkee ni danga ngaa tële woon ci wàllu sëy ba mënatoo dara sax euh, def ko ci kàttanu yàlla incha allahu di nga amaat sa satisfaction bu baax a baax a baax kooku nag waxuma laa ku néew doole comme que ba kittalee la mën a dimbale waxuma laa ki néew doole bu ko defee loolu euh, secret la bu nekk ci saar bi du sóoratu Taaha ñu ngi leen ko doon baaxee ci vidéo bi di ñaan mbokk yi ñu yokk abonné euh, ñiy tawat di wax ni ñi ngi woote jotuñu numéro bi am na whatsapp képp ku ñu soxla mën nga ci envoyé message su ko defee boo fa bàyyee message rek suñ ko liiree dinañ la tontu ñu ngi leen di jox rendez-vous ci beneen vidéo salaamaaleykum wa rahmatullah